mbokk jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi ne ci biir réew mi bitim réew fu ngeen mën a ne dend ak seen télévision la 2STV dend ak seen rajo origine FM 88.4 ñu del sa yéen rek seen jotaay yi daara ji ñu tudde tafsirul quran seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ngeen ci àndal ñu leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaarawaat di leen baalu xaq te di leen ko baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def ñu dëgg-dëgg jullit ñaan ko rek mu ñuy sàmmal suñu imaan di ko rafetalal saa su ba buñ ko ko yóbbulee rek mbégte di am ci moom sikk amul nii ay teraangaam dinañu bëgg lool moom borom bi macha allahu xam ngeen ni ñu ngi ak yéen seen saar bu am solo bi di sotul baqara amoon ci nag deux cent soixante huit verset te ñu war a jël deux cent soixante neuvième verset maanaam amoon nañ ci saar bi ñaar téeméeri aaya ñu teg fukk ñaar téeméeri aaya yu teg juróom benn fukk ak juróom ñett te ñu war a jël ñaar téeméereelu aaya bu teg juróom benn fukk ak juróom ñeent muy deux cent soixante neuvième verset ci seen saar di suutul borom bi subhanahu wa taala bi ñu fiy mujj dafa wax wax ju am solo wax joo xamante ni jar na bàyyi xel mu ni seytaane moom li mu leen di dig dara du ci baax kon moytu leen ko ndax lu leen di yàqal rek la leen di dig yàlla nag li mu leen di dig léppi xéewal la kon bàyyi leen ci xel ndax yàlla moo yaatu lool ci sañ ak mën-mënam sañ-sañam ak mën-mënam waaye ku xamit li muy def la ak ni mu koy defee ak kañ la koy def moom borom bi subhaanahu wa taala lépp nag day wane xereñu borom bi subhaanahu wa kon dafa jar a bàyyi xel jël nañu it ci asma ci wàllu dépense boobu mu nii lii doomu abu abu aboubacar mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ma del dépensé te bu fa nekk di calculer calcul yu yi ndax boobaa dañ la koy def di nee na dañuy lay calculer te boobaa day métti kon nee na joxeer rek bul nay waaw joxe nag bi muy gën a neex mooy da ngay fekk nga doon saxiix saxiix waaw nga doon ku wér ba nga xam ne sa alal ji mën nga cee def lu la neex waaye doon ku nay ci joxe ko ndax alal ji dafa neex ci bakkan nga koy joxe parce que alal mooy régler lu baree baree bari Moustapha alal li mu mën a régler kenn mënu koo xam suñu jur ba daan na wax bàyyi Khalifa nee na yàlla bu doon yónniwaat yonent Moustapha nee na jarul mu koy jox jarul muy dox loo garab jarul muy wax waxloo muuma jarul déplacé dara nee na ko jox alal jurul jeex rek su ñëwee ci Moustapha Moustapha na def ah Moustapha yàlla mu yónni de man mun ko man gëwma la mun ko d'accord xaaral ma ñëw génne benn chekiyam def ci léegi rek benn un million ne ko lu mu Moussa yàlla moom a yónni ne daaw naa ko wallaay moom ki bi ma la gisee rek laa xam ne yàlla la yónni bi ma la gisee laa xam ne la yàlla la yónni kon alal dafa bari mbokk yi lu mën a def waaye mën na la dugal àjjana mën na la indil musiba it nag kon nag bàyyi xel bu baax ci ni ngay dépenser fexe ba am lu lew di ko dépenser fu baax it dafa baax dafa am solo mag ñi dañ ko daan wax lu bare bare bare Cheikh El Hadj Malick nettali nañu ba ba mu ba mu amee njaboot ga ko seet si woon mu tegal leen laaxu daqaar bu doy waar lool boo xamante ni neexul ci bakkan de ñenn nit ci ñoom bañ koo mose dañu yéemu lool mu ne ah neexul waaye ak lew baat boobu lay utiliser keroog mu ne lew na de wax dëgg yàlla de lii ngeen di lekk xaw ma neex nag neexul de waaye lew gi moom wóor na ma ni lu lew ngeen di lekk mbokk yi ko yàlla mooy am koom moo koy defee nu ko neex tey nag mu ñëw nii la yutil xikma man yasha nee na yàlla mooy jox sagesse mooy jox xam-xam mooy dimbali nit Abdullah ibn Abbas nee na mooy mooy joxe xam-xamu dégg alquran xam aay yi ñu yi folli am xaay xam aay yi ñu xereñe am xam aay yi nduroo dend am xam yi jiitu yi mujj nee yooyu yàllaa koy baaxe yi dagan nga xam ko yi xaram nga xam ko maîtriser ko bu baax nee na yàllaa koy joxe mooy maye déggu alquran macha allah ba mel ne Abdullahi ibnu Abbas waaye ba mel ne Abdullahi ibnu Mas'ud waaye ba mel ni suñu mag ñu baax ñi waaye ba mel ni mufassiruuna yi nga xamante ni ñoom ñu dimbali nit ñi ba ñun ñi déggul alquran ñu mën a sukkandiku ci seeni téere di ci leeral kéemtalaayu kàttan waaw yàlla yàlla fayal mufassiruuna waa kay dafa bëri lool nag yooyu yëpp nag nee na yàllaa koy joxe moo koy may ku ko neex xam nga ki moom alalam moom ku ko neex lay may wax dëgg yàlla yàlla xel mu rafet sagesse dégg alquran dégg jamono nee na loolu alalam la ni lépp ne alalam léegi nag ki moom alalam doo ko ne diw ngay may ak doo may diw diw ngay may ak doo may diw te mu moom alalam ah wolof nee na baax ci sab alal ñel ñeme sab der de waxoon naa leen ko keroog gis nga nit ki del maye li nga moom nit del maye loo moom waaye bul jël yëfi jàmbur di ko maye waaye nag boo amee sax sañ-sañ am sax moomeel ci sa alal seet kala neex nga may ko ah wax dëgg yàlla nag kooku ku ne sañ na ko yàlla nag moom moom nee na yuutil xikmata man yashaa'u suñu borom nag yenn saa yi day woon gaa yi nii lu ma neex laay def de loolu moom dong la jig moom dong la def loola neex jig moom borom bi nee na nag yu'til hikmata man yashaa ku ko neex lay jox xere xam-xam bu xereñu boobu mun nag wa man yu'tal hikma képp koo xamante ne jox na la loolu de muy xel mu rafet xel muy xel xam-xam bu yaatu dégg li nga jàng dégg mën a jàngale muy leer nee na yooyu yëpp ku ma ko jox faqad ya xayran kathiran la yàlla wax nee loolu de ku ma ko jox na nga yëg ni jox naa la yiw wu baree baree baree bare waaw yiw wu bare loolu yàllaa koy jagleel nit may la xikma soo waxee nit ñi mën ko comprendre mën ko dégg am na ñu yàlla may loolu ñoo xam ne faaw rek bu ñuy wax nga déglu leen ñoo xam ne faaw bu ñuy wax nga déglu leen waaye faw soo paree rek di nga dégg lañ doon wax loolu yàllaa koy jagle ba ci da ngay gis jàngalekat yi sax ci classe da ngay gis benn professeur ñu tegal la fii dix professeurs mathématique ci misaal ñoom ñëpp doon ay mathématiciens élèves yi da ngay dégg ñu naan la diw bii de moo gën a ay diw mii te moo ne ñoo bokk luñ jàng de kenn ku si nekk da jàng ba war a jaar école normal bu dee fa nga jaaree nga jaar fa. ñu formé la li ca la nga amoon ci sa xam-xam génn ni la tey professeur SG nga wala SVT nga yor wala mathématique nga yor waa lu tax ñoom ñëpp ñu yam jàngale njàng ba pare bu ñëwee ndongo yi ñuy yor dem ba da gis xale yi dañ naan ñun de li ñu lor ren jii mooy dañ ñoo jox professeur boo xamante ni dafa desee ay moo xam prof anglais bala moo xam prof français wala lu mën a doon ki ñu yoroon daaw moo gën a aay ki yor terminal B kii naan la ki ki yor première B ku ci nekk di wax ci waxin parce que yàlla mooy mooy maye yàlla mooy maye te ka ko neex rek lay may nag waaw dina loolu moom nañ ko xam mu ni képp ko yàlla jox nag may la li mu la may de muy xikma xereñ gi ak xam-xam nee na jox na la yiw wu baree baree bari xayran kasiiran waaw yiw wu baree bari waaye nag lii mu wax neexu la dégg de moo tax mu ni wa maa yadakkaru illa ulul albaab nee na kii waaru kii comprendre lii ñuy wax nee na mooy borom xel yi xel borom lubb xel mu ñuy jëfandikoo nee na ñooñu ngay wax ñu comprendre boo xoolee Maurice Bucaille bi muy taalif téerim boobu tudde ko la Bible la Coran et la science xam nga ni jëfandikoo na xel mu takku lool pour mën a xam taxawaayu alquran taxawaayu lislaam waaw Roger di jël ko ak seeni kem boo doon lim doo fi jóge macha allah xoolal les philosophes yi nga xamante ni dañ lay yéem yenn saa yi dañ ci gis ñoo xamante ni dañuy philosophe philosophe ba mujj a teer ci lislaam rek waaw di philosophe di philosophie di ko dugal di ko génne dañu mujj rek ndekete ñu seen wiiri woowu yépp ndaari la ñu jëm ma ziyaare baax professeur monsieur Ndiour macha allah di ko wàcce wàcc waayam macha allah bokk ci professeur yi nekk ci lycée Malick Sy di jàngale wàllu philosophie yàlla na yàlla gën a ubbi seen dënn waaye da ngay gis rek ñoom ñëpp dañuy teer jékki-jékki daal lu ñu jàng jàng lu ñu dem dem mën nañu doore ñaan la je n'existe pas waaw pourquoi un Dieu infiniment bon infiniment puissant peut-il être à di wax rek di wax rek xëy na dañu mujj rek bu ñu naan dagat ci diine ji duñ dañuy duñ ko sax yëg duñ ko yëg dem ba si yàgg rek xool nañ xool nekkete daal l'islam rek kay dëgg l'islam moo wóor l'islam kon wama yadakkaru illa ulul albab la yàlla wax borom xel yi xel lay lay lay jëf lay lay tudd foofu ziyaare macha allahu waa lycée Malick si ak lycée yi ci Sénégal yëpp ndokkil leen xale yi nga xamante ni yàlla may na leen ndam ci seen examen yi yàlla na leen jik yàlla nañu amaat yeneen diplôme yu kawe jëriñ réew mi jëriñ diine ci nag jëriñ diine na leen ko yàlla defal ñoom ñëpp waaye nag yii leen di tàggat dañu jar a bàyyi xel dama koy wax saa yu ma demee ci soutenance damay xool les professeurs ni allahu akbar kenn du yéen kenn du yéen coow li bari di ci réew mi yëpp du ngeen ci bokk te moo ne de ñiy génn di coow faaw yéen yéen a leen di tàggat pour ñu mën a am sax lu ñu am am benn matière grise bu dee noonu laa ko man a waxe bu ñu wax te xale di ko jàng am koo xamante ni moo lay encadrer pour sa soutenance ba xëy bis ndeysaan booy soutenir lu sa mbokk yi am stress stress loo ko am moom ëppale wuñ ko stress professeurs yi tiim la waaw yenn saa yi mu doon mu doon mbir boo xamante ni day jël xale bi toog di di di soutenir yenn saa yi day jël ndax xam na ni am na ku ko waajal te xam-xam moo mel noonu nag mbokk xam-xam moo mel noonu xam-xam yenn saa yi day provoqué day provoqué ay mbir fama yadakkaru illa ulul albab borom xel muy xel yenn saa yi du nangu boo demee ci am nañ ci ñoo xamante ne ay critique la ñuy def maanaam ñoom loo wax da naan du nii parce que loolu la ñu jéeme seen xam-xam pour bëgg ngay gën a parfaire sa liggéey waaw moom xam-xam yi yal na leen yàlla fayal maa ngi koy wax rek bër ki démb Eh, président ba Badara Bèye Bèye yéen bu bëgg mburu boobu man ko yéen yal na leen yàlla fayal yéen borom xalima yu ñëw yi fekk ma dem demoon ziare ji El Hadj colonel Momar ma ziar ko ba baax ziare Adja Khady yal na yal na kaala gi ràpp waaw ngeen ko léegi rek sañ naa koo wax baat la boo xam ne ba ko daan ragal la wax ndax dégguma woon wolof yi waaye xam nga professeur Massamba Guèye moom foo ko fekk rek moo ko fekk ci jotaay rek provoqué ko ni ko wax dëgg yàlla baatu yàlla na kaala gi ràpp nga ràppal ko daal wolof a nga koy wax waaye kaala gu ràpp ci ku man daal dese naa koo dégg moo tax bëgg naa di ko wax nit ñi ndax nit ñaa ngi koy wax mais dama koo desee dégg te ràpp daal ñum ginnaaw bëgguñu lu ràpp waaye mu leeralal ma ca lu baree baree bare xajul nag ci biir émission bi xaju ci waaye daal ba mu ko waxee daal léegi ñeme naa koo wax ñeme naa koo wax kon nag yàlla na leen yàlla fayal xam-xam moo wóor mbokk wa ma yadakkaru illaa ulul albaab waaw illaa ulul yal na leen yàlla fayal kem yooyu borom xam-xam yi ci réew mi mbokk yi kenn mënu leen lim ci fan yëpp nag ci fànn yëpp wa ma yadakkaru illa di waxit ci yàlla dépense ba tey nii wa ma anfaqtum min nafaqatin lépp loo xamante ni dépensé ngeen ko ci wàllub dépense maanaam joxe ngeen ko fii sabilillah loo xamante ni génne ngeen ko moo xam azaka la moo xam sadax boo xamante ni tatawu la ngir ne da nga koy da nga koy naafila joxe rek te sax du azaka aw nazartum min nazrin wala lépp lu ngeen nisir ci nisir nisir wax naa leen ko <clears throat> am na ci borom cër yi ñoo xam ne duñ ko sax def ñoom cautionné wuñ ko se nee nañ dafa mel ni da ngay chantage sa borom borom bi subhanahu wa taala donte nag am na te mën na ne te du du du jur bàkkaar ci nit ki am na ñoo xam ne seen tolluwaay moo ko weesu ndax xasanatul abraar sayyiatul muqarrabin am na ñoo xam ni lu baax li ñu baax ñi di def ñi jege yàlla ñoom loolu day mel ni daal wax dëgg yàlla sax day mel ni bàkkaar ci ñoom nisir mooy yàlla defal ma lii ma defal la loolu rek la dëgg yàlla soo ko bëggee leeral defal ma lii ma defal la lii man de yàlla da ngay gis xale buy def examen yàlla man de sama BFEM bii wala sama bag bi wala sama. master bi may def wala sama doctorat bi may wut yàlla soo ma ko defe joxee de dinaa la wooral ñetti fan jaamoo la ko kon da nga jël mbir dendale ko ak sa borom ni ko defal ma lii ma defal la lii wala lii dey sama doom jii dey mu ngi dugg ci néegu sax yàlla boo ko mayee borom kër walla sama doom ji mu ngi ut liggéey yàlla soo ko defalee lii ci waxin wala maa ngi ut lu may sàkku yàlla soo ma ko defalee ma defal la lii dinaa wóor wala dinaa dem màkk jaam jaamoo la jaamoo la ko dem tawaaf kaaba ga daw safa ak marwa def umra boo xamante ni ngir jaamoo la ko rek lay doon yow yàlla wala naa saraxe lii ci alal naa joxe lii loolu mooy nisir nag aw nadartum min nadrin na nga xam ni bul defee nii nisir danga koy wax ba mu neex la euh, nga di da nga ciy génn yooyu bi nee na ku yéene ni am nisiru def lu baax nee na na nga ko def pour jaa jaamu yàlla su dee da ngaa niséroon ne dinaa moy yàlla nee na bu ko moy baaxul wóorul defal kafaara na la gënal nga def lu bon lool mun nag nisir mooy loolu yàlla ngi tagg benn famille ci alquran naan leen yuufuuna bin nadri wa yaqaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira wa yutcimuuna altaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fa waqaahum allahu sharra dalika alyawm wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xariira muttaki'iina fiihaa ala al-araa'iki laa yarawna fiihaa shamsan wala zamhariira wa daaniyatan alayhim zilaaluhaa wa zullilat qutufuhaa tadliilaa mbokk yi ñooñu benn famille la ñu woon boo xamante ni dañ lay wax ni la imaam ali la ndeysaan ali ibnu abi talib soxnaam fatima doomam xuseyno ak doomam xasan ñoom ñoo nisiroon ali nisir ci njabootam gu feebar yàlla boo leen saafara de naa woon ñetti fan jaamoo la ko soxnaam di fatima ni ko sooy woon ñetti fan yooyu naa la ko wét naa la ci wéttali xasan wér ak xuseynu ni baay asan ni yaay naa la ci wéttali xuseynu ni mag ji naa la wéttali ñoom ñëpp ñu woor yàlla ni ñoom de day na bin nazri ñoom de dañuy matal nisir bi ñu waxoon ndax kat wa na yawman kaana sharruhu mustatira dañuy ragal bis boobu nga xamante ni day ah tar na de tar na de mbugal man tar na mun kon lépp lu ngeen nisir ci nisir fa inna allah yaalamu yàlla xam na ko gis nga maanaam li dépenser di ko wax amul njëriñ yàlla xam na li nga jox wa maa anfaqtum min nafaqatin fa inna allah yaalamuhu aw nazartum min nazrin fa inna allah yaalamuhu mu jeex waaw li ngeen yéene def ko yàlla xam na ko li ngeen dépensé it joxe ko te yàlla taxit yàlla xam na ko moo ne day maa fi def lii ma da koo jar fa inna allah yaalamu yàlla xam na ko yàlla bu ko xamee ba pare doy na bal yàlla xam ko ba pare ngay sonal nit ñeeg wax ju dul jeex bu ne wa maa li zalimina min ansaar nee na tooñkat yi de du am ku leen dimbal yàlla nañ yàlla musal ci tooñ yàlla nañu yàlla musal ci tooñ nee na tooñkat de du am ku ko dimbali bu yowmal xiyaamee fii ci àdduna sax bu ko yàlla di duma di ko régler kenn mënu ko cee génne borom bi subhaanahu wa bàyyi loolu di wax ñiy feeñal sarax ak ñi koy nëbb borom bi nee na in tubdu sadaqaat bu ngeen di saraxe feeñal ko ba ñépp gis ko de nee na ah yi maa baax na de baax na de bu doon ci examen am ngeen mention assez bien waaye wayn tux fuwaa nee na su ngeen ko nëbbee nag wa tutuwal fuqara ngeen jox ko néew ji doole yi fa huwa xayrun lakum boobaa am ngeen mention très bien bi am nga ak sax nag assez waaye bii nag am nga ak mention très bien bu ñuy wax nag mbaax boobu ngëneel dafaa newul kon joxe muy feeñ baax na de mais mais ba ca baax mooy ba mu la leer ni defoo ko ngir ngistal na leer de fay ay maa yie jii mooy bi nga joxe baax na lool waaye na fekki nag ni yëg nga ni defee woo ko ngir ngistal xëy na da nga ko def ngir ñaax nit ñi ngir ñuy joxe wan leen ni nit dafa war di joxe nee na boobaa baax na waaye nag wayn tux fuwaa bu ngeen ko nëbbee nag li tax mu gën a baax mooy mën na la musal ci ngistal parce que mën nga joxe sax doo ngistal de waaye nit ñi topp la cey lay bu doon boo bu saa yoo joxee sa loxo bi kuñ léegi sa loxo kuñ na wax naxe kat yooyu rek di la ko naxe ba jékki-jékki yow bi ngay joxee ci ndoorteli yéene ju sell nga ci amoon waaye wax yooyu dugg la nit dafa man dafa yëg boppam di di nga def ngir yàlla ba si ay wax wax wax jékki-jékki rek yëngal la doo yëg sax loo loo yëngoo nga commencé mel ni ku ràkkaaju moo tax mu ne nag boo ko nëbbee di nga mucc ci yooyu jox ko nag néew ju doole néew ju doole bi parce que aussi joxe jël dafa metti de mbokk yi jël dafa metti gis nga bala nga koo xam nga fekk joxekat di ko jox joxekat li ko gën a mën a indil fitna mooy yow nga jox moom jàpp ne dafa war di joxe rek mais bis boo ko joxee day mel ni àdduna day tukki ci kaw joxekat noonu lay mel mu ni kon nga jox ko ñi ñàkk ndax ki ñàkk moom wax dëgg yàlla yenn saa yi jox di ko weer baaxul waaye yenn saa yi ki ñàkk it yenn saa yi moom it bëgg nga jox ko publiquement di pour ñeneen ñi gisee ko ci di joxe di joxe ni Cheikh Ibrahima Khalil loolu di wax rek nee na yenn saa yi nga gis leen bu ñu gisul ku leen jox sax ñu weccee ko benn ñaar fukk teg ci seen ta kii noonu pour ku ñëw gis ko gis ne ah ñoom day wax dëgg yàlla wala ne la nit ñaa ngi commencé di joxe pour nga yëngatu waaw mu ne nag wa tu'tuwal fuqara ngeen jox ko néew ji doole yi faqiir yi fa huwa la lakum loolu de moo gën ci yéen ci mucc ci lépp luy ngistal ak lépp loo xamante ni day indi wanew nëbb sarax boobu daf ci am solo saraxe di ko nëbb boo demee ci xadis ba abu hurayra indi na ko jële ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam muy sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma la dilla illa dillu muy imam bu maanu yàlla dina ko keral jeune buy jaamu yàlla yàlla dina ko teral koo xam ne xol bi day takkook jàkk su fa jógee xol bi di ca nekkaat yàlla dina ko teral ñaar ñu bëggante te yàlla tax yàlla dina leen teral koo xamante ni day xalaat yàlla xol bi tooy mu mu jooy yàlla dina ko teral koo xam ne jigéen ju bokk ci askan am alal da koo woo ci mooy yàlla mu bañ yàlla dina ko teral waaye bi ma ci itteel tey mooy koo xam ni suy joxee loxo ndeyjoor bi li muy génne loxo càmmoñ bi sax du ko yëg mooy da ko nëbb bu baax a baax a baax nee na loolu de moo gën ci yéen bu ngeen di joxee ngeen joxe noonu moo gën fa huwa xayru lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum te joxe boobu am na bàkkaar yoo xam ne joxe rek a ko mën a far joxe rek moo ko mën a far min gi nag ñenn yi dañ naan li tabax du lépp dafa am lu muy jël am lu muy bàyyi am ñun déedéet waxin la waaye lépp la ca yàlla di dugal lépp la lay baal wallahu yàlla bi maa taamaluuna xabiir nee na yàlla de moom ku dañ kumpa ci li ngeen di def la ndax wax na la ko moom wa maa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha yaalamu kon mënoo koo nax moom yàlla ndax ku dañ ci lépp lu ñuy def nit nag moo mooy ki bañ kumpa moom nit lu ko ëmb rek la bañ mooy nit ñooñu nga xam ni dañ kump lu ne ñu bëgg koo xam am na ñoo xam ne du ñu tàqali koo rajo dañ kumpa rek dañ bañ daara leen raw daara leen daara du leen raw am mooy nga xam ni information rek lañ mën a joxe foo leen fekk lépp ñu nga ca lépp ñu ngi koy bëgg a dégg lépp ñu ngi koy bëgg di nekkal mu ni kon bu ngeen ko nëbboon nag jox ko néew ju doole yi joxin bu ëpp ëpp sutura loolu de moo gën ci yéen dees na leen ci baal seen bàkkaar faral leen ci seeni ñaawteef te yàlla kat li ngeen li ñuy def yépp ku ci dañ kumpal yàlla dara ump ko mbokki wallahu bi ma taamaluuna xabiir wala wallahu xabiirum bi ma taamaluun yàlla ku dañ kumpala ci lépp looy def nëbb ko ku la neex waaye mënu ko nëbb sa borom yàlla du ko ñuy nëbb ay bii ñuy waaj a jàng nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay jamono dafa ne woon jullit yi bu ngeen di saraxee dee leen sarax jullit yi tuuku teyam fa pour moom xëy na jàpp na ne bu defee loolu dina tax gaa yi loolu gën leen xiirtal ci lislaam yàlla ni ko ah sag bi yaa baax yaa bëgg ñëpp dugg waaye nag kaay mun ko mun ko laysa alayka hudaahum seen njub nekkul ci sa loxo bu leen teg santage bu leen santage loolu pour bëgguñu dugg bàyyi leen rek laysa alayka hudaahum seen njub nekkul ci sa loxo walakin allaha yahdi man yashaau yàlla mi moom ak njub mooy jubal ku ko deex ma di lahu fala mudilla la ku yàlla bëgg a gindi teg la ci yoon kenn mënu laa mun ko yàlla mooy kii def loolu wala walakin allaha yahdi man yashaau yàlla mooy gindi mooy teg ci yoon wu jub mooy teral mooy baaxal képp ku ko neex moom yàlla mu ne wa maa tunfiqu min xayrin fa li mu ni lépp lu ngeen dépensé rek ngir seen bopp la kon du ni rek diw mii kat doob jullit rek doo ko jox dimbali ko néew ju doole la soxla na ko jox ko rek li am solo mooy wama tunfiqu illa ibtigaa wajhillah waaw lépp loo xamante ni yéen ngi koy dépensé dépensé leen ko ngir ut ci jëmm yàlla ji suñu saz saz mbay say géey yàlla na ko fi yàlla yàlla yàggal dolli ko wér wallaay nit ñaa ngi ma koy laajaat rek ci émission bi xam naa ne moom du yàgg daara rek ma yàlwaani waat ko rek benn benn jotaay rek ci émission yoon wi mu ñëw baaxee ci nit ñi xam-xam yàlla daf ko defal xikma allahuma laa adoro ku mu mas a jàngal dégg nga lim la jàngal ñun de bokk nañ ci ñi jaar ci loxoom waaw mu def ci ñun lu takku dañ daan wax dañ ko mas a laaj maa ngi fàttaliku xaw ma sax lii may nettali ndax moom dina ci am rappel booba ñun dañoo xamoon ci Thiès benn waa joo xam ni néewoon na doole daan sàkku ndimbal daanaka sax daa dafa amoon cër yi manqué woon na waaye nag dañu seetlu woon ni jamono yooyu da daan jëfandikoo li ñuy wax ñoll daan loo xamante ni mën na di gains ak di def yooyu ñu ndaw dañ daan wax naan ci est-ce que ñun war nañ ko sarax parce que nag aussi jox ko sax xaalis mu dem jëndee ko ay dirian yi di gains fii yooyu di indi problème daf ñu daan xaw a déranger ñun est-ce ci kii dërëm ak ñaar dërëm bi ñu am war ko jox est-ce que war nañ ko ko jox waaye bi ñu laajee oustaz Mbaye Sy dafa nañu waaw parce que jàppale ni dina lekk mburu dina lekk ceeb dina def li dina def li seen alal ji ngeen ko jox def leen jàppale ni mburu la ci jënd waaye bu leen jàpp ni mukk da koo geese mbokk yi bind ko bu muy leer ci ay wax yi nag moom Oustaz mbay Sy mun kon wa ma tunfiqu illa ibtigaa wajhillah li ngeen dépensé uti loon ci lu dul fayub yàlla yàlla moom moo leen di fay wa ma tunfiqu min xayrin lépp lu ngeen def ci yiw joxe ko te yàlla kese tax yàlla rek ngeen ci jublu utu leen ci lu dul yàlla kii dub jullit de waaye jox naa ko loo xam ne xëy na xiifoon na dem na jënd ci mburu dem na jënd ci lekk def na ci li amoon na problème def na ko ca yàlla laa ca jublu woon man joxuma koon woon yàlla laa laa doon jox nee na lépp lu ngeen jeexite yàlla tax yuwaffa ilaykum yalla moom moo leen di fay wa antum laa tuzlamuun yaay yéen de deesu leen tooñ déedéet deesu leen tooñ yalla du tooñ da leen di fay ku ko liggéeyal mu fay la moom borom bi subhaanahu wa yi seen tafsir jeexul de waaye yeggaat nañ fi ñu yëkkite jotaay bi ci wa antum la tuzlamun yàlla du leen tooñ ci bu leen di jox su leen joxee sax ngeen xam ne li mu leen jox moo ëpp li ngeen def teg leen foofu seen baaraam su ma njëwee yeen wax kan la ñu war a jox kan la ñu war a jox si la ñuy ñëw macha wala ñan la ñu war a jox dinañ ci ñëw yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp allahuma ashfi mardana warham mawtana waqdi xawaijana waqtim bilbaqiyati salihati amalana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu على